asalaamaaleykum mbokku téléspectateur TMS TV ñu ngi fii tey nag ci Touba daanaka ñu ngi ci xolu Touba ndax ah sëñ bi waaw ñu fekk sang bu baax bokk ci organisation bi tur wa sëñ Mbaye Fall. sëñ maa ngi tudd sëñ Mbaye Fall. sëñ Mbaye Fall yow sa ah. sant mi naqari na mënoon sant Diagne. <laughs> sant bu baax rek xam naa Njaañeen ni moom màggal gi. bokk na ci li nga xamante ni moom seen mbégte la. Ah, ñu ci sant bu baax a baax Seexul Xadim. waaw léegi bërëb bi mooy ban bërëb. fii ñu nekk nii waaw nekk nag mooy bërëb bi nga xam ne fi lay jànge xasida yi mooy barab bi nga xamante ni moom la Hizbut Tarqiyyah yi jànge xasida yi mooy mbaarum sëriñ mooy mbaarum kër sëñ buntu kër sëñ Fallou buntu kër sëñ Fallou waaw buntu kër sëñ léegi léegi jumaa ji moo nekk nii waaw moom lañ jàkkaar lool en face waaw moom lañ jël en face fii kër Seexul Xadim itam kuréel ba fa nekk itam benn kuréel bi la dañ ko xaaj ñaari kuréel foofa itam am na ñoo xamante fa lañ nekk di jàng uh-huh. mu am sonorisation boppam fii tam am sonorisation boppam waaye sëriñ bi moom mi ngi ci biir di ko teewlu waaw léegi ci biir ñan ñoo fi nekk waa isbu yi waaw biir istarxe moo fi nekk boo la seen kuréel yi istarxe euh, kenn ku jàng ba pare rek jóg noonu lañ ko jàppoo depuis 18 17 safar ba kera ñuy ñaan ci jàmm ku jóg rek sa morom ñëw toog incha allah. ñu dugg ci biir xool jërëjëf Fall ñu dugg xool ñu dugg xool ñu dugg xool ci biir waaw ñu dugg xool ñu dugg xool salaamaaleykum fii nag moom daanaka boo ñëwee dañ lay jox dañ lay jox euh, mbuus pour nga def fi dàll yi jërëjëf kon nag euh, gis ngeen ko waaw dàll yi waaw dàll yi boo ñëwee fii da ngay summi dàll yi ñu jël ay sachet defal la ko ci gis nga dañ lay jox sachet nga def ci dàll yi kenn du fi dugg ak dàll gis nga ko sëñ bi toog moom moo yor lii pour képp ku ñëw rek. ñu jox la mbuus nga def ci sa dàll gis nga dàll kenn du ko fi duggee gis nga kenn du fi duggee dàll ndax béréb bu sell bi ñuy jàngee alxuraan di fi jàngee xas ne sëñ Tuubaa yi kenn du fi duggee dàll gis nga ay mbuus nag lañ lay jox nga def ci dàll yi gis nga voilà ñu xool ñu xool dégg ngeen waaw dégg kon nag dégg ndeysaan waaw kon nag ñu ne isbut yi ñoo nekk fii dégg ngeen noonu ñuy yëkkati ndeysaan waaw ñu dem xool nag waaw ndeysaan waaw gis nga sang yaa ngi nii yor maanaam li ñuy naan vraiment berndeel yi ñu ngi kontaan ci yéen bu baax ma ne ko ñu ngi kontaan ci yéen waa gis nga ñoo yor berndeel yi ah ndox yeeg vraiment jus yeeg yëpp baax baax yëpp nga xam ne nii moom la ñuy jox mbokku taalibe ñu di ci xéewlu defe naa ne màggal gi ko ko wax xéewlu voilà gis nga ñu ngi ziar bu baax. waaw gis nga gis nga mbooloo mu takku ndeysaan kenn ku nekk yaa ngi yor sa kaamil di jàng waaw waaw kon nag ñu continuer waaw salle bu mag la nag gis nga vraiment salle boo xam ne nii ah, climatisé sedd guy gis nga moquette bi gazon moquette bi gason la vraiment waaw fii moom jaru salal ba sang wala sijaada voilà gis nga sang yaa ngi noonu toog gis nga leen ñu nga nële waa isbuur yaa ngi noonu toog di jàng kon nag ñu xool ñu aspect technique bi waa technique bi ñu dem xool aussi ñoom tamit euh, naka lañuy liggéeyee vraiment mooy yi ñu débloqué déplacé déployé pour une la couverture médiatique de ce grand màggal de Touba nga xam ne at bu jot dafay gën a yokk waaw gis nga technicien de son yeeg caméraman régisseur cadreur ñoom ñëpp fii la ñu daje ah lii nag dafa mel ni équipe bu TMS la gis nga équipe bu TMS déjà ils sont bien installés euh, gis nga déjà mbay mbay ah? Mbaye Mbaye déjà le cadreur il est déjà en place installé euh, Moustapha chauffeur gis nga ko moom tamit di jàpp ci liggéey bi ñëw di ko jàppale mu ngi nii toog ci wetam. TMS kon fi la ñu nekk ah waaw mais mais mais mais mais mais Mbaye alors naka liggéey bi naka liggéey bi. ah liggéey bi ñoo ngi si kawam de. ah ñoo ngi si kawam de di koy installé ngeen. waaw installé nañu waaw. mbaa bi lépp est en place. yëpp a en disposition kay. ah très bien kon nag gis ngeen ko ah, vraiment aussi le marabout. Euh, le PDG de la TMS TV tamit mettre les moyens qu'il faut pour permettre à l'équipe de se déplacer pour venir couvrir le màggal ñu continuer ci kanam xool aussi yeneen confrères yi ak yeneen organes yi ñoom tamit. Hmm? waaw gis nga sang bi tamit sëñ bi na def. ça va bien yéen a ngi ci liggéey bi. waaw waaw ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey bi. Ah alors euh, yéen daal fii mooy seen quartier général. waaw waaw fii mooy suñu quartier général ñëw nañ fi équipé ko. pour def benn méga régie boo xamante ni à partie de Europe Italie euh, France. lépp loo xamante ni image la lu jom ci màggal gi. dañ koy jox fi lañ koy jàllale. waaw ñi ciy def liggéey bu mucc ayib. yow monteur nga wala caméraman wala technicien wala régisseur. waaw man caméraman monteur laa. waaw waaw waaw tout ce qui image. Uh-huh. nit ñi dem dañuy dem ci sur le terrain dem jëli ko. Uh-huh. waaw ànd ak euh, CRA 221. waaw dem jëli ko suñu ñëwee def ko ci méga régie bi. ak yeneen confrères yi kenn ku ci nekk ñëw nga. indi nga sa euh, matériel. sa arsenal li nga am yëpp indi nga ko. ñu ñëw fii def suñu carte générale fii la ñuy jàllale lépp lu image. en direct Sénégal gépp di ko gis incha allah. waa di daal. déedéet vraiment amuñu benn jafe alhamdulilah donc comme vous le voyez sur ces images nous sommes en train de euh, de visiter en tout cas euh, le méga euh, méga régie alors donc tous ces aspects techniques concernant l'audiovisuel ah euh, c'est ici leur quartier général alors pour les besoins d'une très bonne couverture de ce Magal vous le voyez en direct. Alors tout ce que vous voyez sur la télévision, sur les chaînes YouTube, alors rien, rien, rien n'est laissé au hasard. Maintenant nous allons aller nous diriger vers le responsable hein, de ce méga régime pour aussi lui demander vraiment de nous donner ses impressions par rapport à ce travail gigantesque qui est en train de se faire ici pour les besoins, pour les besoins de ce grand événement religieux je veux parler je veux parler du grand magal de Touba ah sang bi waaw sang bi ñu ngi ziar nangeen def ban sant bi mbuub la ah? ah mbuubeen bi yow yow ah d'accord waaw waaw waaw benn dañu bëggoon ay commentaires rek par rapport ak dispositif yooyu hmm. waaw ah d'accord d'accord d'accord d'accord d'accord sëñ mbuub jërëjëf mbuubeen bi jërëjëf jërëjëf xam naa wàddeen yi nga bañ ñu summi rek xam naa li fi ne ko yëpp lekk nga ko voilà merci merci beaucoup alors euh... sang bi na nga def ñu ngi ziar alors euh, tey dañ ñëwoon vraiment dans le cadre du Magal faire un reportage déjà c'est vrai sur les sur cette disposition que vous avez mis en place pour une couverture médiatique Alors nous nga faire quelques commentaires hein, par rapport les moyens qui sont mis à votre disposition, mais aussi les millions des millions de téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde. Quel message nga leen di wax waaw xam naa bu leen euh, nuyoo ziare leen xam naa sëñ Assane dafa baax rek mais mooy jëriñ gars yi fii ci liggéey bi euh, ci méga régie bi euh, man maa ngi fii ci Almouridiyyah TV Euh, nekk membre ci tarxiya euh, di bokk ci ñi nga xamante ni ñooy saytu wàllu woowu itam fii euh, yaakaar naa itam lépp loo xamante ni ay moyen la rek yoo xamante ni war nañ ko mën a jël pour ñi nga xamante ni yàlla dogalul ñu mën a màggal si moo xam ñu ne ci biir réew mi wala ñu ne biti réew danañ mën a dund màggal ji comme ñi nga xamante ni ñoo nekk ci màggal gi ñu leen koy wan maanaam ci aw yoon woo xamante ni wu gaaw lay doon waaye wu direct lay doon woo xamante ne ñun niñ koy vivre fii maanaam ñoom noonu lañ ko vivre euh, te du am benn tak-tak muy ci jumaa jeeg parce que boo xoolee fenn fu ci nekk rek maanaam gars yi ñu ngi fay am ay ay ay euh, kon yaakaar naa loolu rek maanaam moo waral euh, dispositif bi nga xamante ni moom lañ teg fii daal maanaam li ci solo daal mooy ñi nga xamante ni ñëwuñ biir ak ñi nga xamante ni ngi ci biti réew maanaam ñu mën a dund ensemble ak ñun ak ak màggal gi daal loolu rek mooy mooy mooy mooy. mooy wax moom dafa mel ni sax yéen vraiment ñoom ngeen fi nekkal. parce que ñoom léeg-léeg sax dinañ gis loo xam ne nit dina ñëw ci màggal gi te du ko gis. Mhm. waaw loolu la loolu la ndax xam nga am na ñoo xamante ni tey bu ñu ñëwee ci màggal gi euh, maanaam ñii ñu ngi ca waañ ya ñi ñoo ngi ca nangam ya ñi ñoo ngi ca nangam ya euh, fa nga nekk rek fa ngay mën a gis ñii nag euh, ci seen technique bi ñuy doxee maam dañ lay mën a wan lépp man wan la Daaru Xudóos wan la jumaa ji wan la sax ñiy liggéey ci biir waañ yi wan la ñu ne biir mbaarum suñ fàllu fii ci suñ ginnaaw wan la it ispitar xëy ni nga xam ne noonu fii waaye ci résidence Xaadim Rasul comme ni ñuy amalee eh, ci fii ci mbaarum suñ fàllu noonu lañ ko ci kanamu Cheikh Mamadou Muntaxa ci mbaarum Daaru Xudóos yooyu yëpp fi ne boo xoolee dañ leen koy wan en direct ñoom ñuy koy mën a daal kon day mel ne ñoom sax ñoom ñoo gën a bénéficié wu côté boobu ci ci biir dëkk bi eh, fii ci Touba ah, jërëjëf sang bi euh, Tara s'il vous alors gis nga tey nag euh, on a on a retrouvé Serigne Modou Kara en véritable talibé d'abord avant d'être le technicien le professionnel de de la communication de l'audiovisuel qu'il est superbement habillé à l'image d'un talibe convaincu Modou Kara tey ñu fekk la tey vraiment tey ah, nga nga defar ba mu baax. <laughs> Ah, waaw macha allah di wax jërëjëf Serigne Touba jafe Borom tuba Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul doyen comme ni nga ko gisee rek ñu ngi ci méga bi ci réalisation bi ak euh, flux yi nga xamante ni moo nekk ci diaspora bi ak yi nga xamante ne mooy daw ci alentour bi yëpp ñu war koo tasaare yaatal ko mu wër jamono ko defee ñëpp mën a jël lien bi mën ko yaatal fu baax a baax a baax waaye lu ñu gën a neex ci màggal gi gis nga gars yi tey dañ ma defal waa tey moom dañ maa yóbbu ci isbu bi moom mhm. waaw may ziar bu baax a baax a baax sunu kilifa sunu xarit suñu PDG di Thierno Moulay Sow di xalif général des jeunes di ko ñaanal di wax ne kontaan nañu di leen bien bienvenue màggal gaa ngi noonu loolu lañ fi soxla rek ci image ñu ngi ci seen disponibilité waaw. merci beaucoup dégg ngoon dégg celui-là qui est chargé euh, de la responsabilité en tout cas de surtout technique de Soki production mais aussi de de l'audiovisuel d'une manière générale de la TMS TV euh, Mamadou Kara Seck il est bien là bien sûr bien bien bien bien habillé superbement habillé à l'image d'un d'un talibé d'un grand talibé alors donc euh, mu mu mu mu jiitu fii l'équipe pour prendre toutes les dispositions afin quand même que les, les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde euh, puissent quand même ne rien rater, ne rien rater de ce grand événement religieux euh, qui est en train vraiment euh, de prouver encore la suprématie, mais aussi la dimension euh, spirituelle de Serigne Touba Khadimoul Rassoul. alors donc loolu nag euh, mooy mooy li nga xam ne nii voilà gis nga ko actuellement voilà ce qui se passe au niveau de la salle ngeen gis ko nii. voilà gis nga Italie waaw. Bergamo gis na déjà ñoom ñoo moom lañ dugal nii comme flux. addina bépp di si jot di kër reprendre ci live events bi. boo doon xoolee fii am na illustration drone. boo xamante actuellement lii xew ci jumaa ji yëpp actuellement en direct gis ngeen drone bi mooy daw nii. voilà mooy daw nii. gis bu ñu duggee fii tamit gis nga xasde yi yi nga xamante ne moom la waa Hizbut Tarqiyyah ji def nii déjà gis ngeen moom moo nekk fii mooy base Kër Sëñ Fallou. Mhm. ñu dugg ci mbaar mi nga xamante ni moo nekk fële ci xalif général di euh, des gis nga Seysa moo nekk nii moom bu génnee di assister xasida yi dañ koy am live and direct waa kon daal euh, doyen mi ngi noonu ñu leen di jaajëfal di leen dalal lépp loo leen fi bëgg rek xéewul Sëñ Tuubaa yaa ngi fi. Voilà, merci donc vous avez entendu les commentaires de de Kara. euh, le responsable de la production de la TMS TV, c'est vrai qu'il n'a pas, en tout cas, arrêté de remercier encore le PDG de la TMS TV, Elagi Thierno Moulay Sow, qu'on ne présente plus lui aussi, euh, quand même le grand marabout, celui-là que le journaliste avait surnommé le phénomène universel, qui a mis gracieusement à la disposition de l'équipe de TMS euh, tous les moyens qu'il faut pour une couverture correcte, correcte et intégrale de ce grand événement religieux qui est le Magal de Touba kon nag euh, ma ànd ci ak euh, caméraman Youssou euh, ci kanam dinañu continuer waa rek dafa leen fi yeneen reportage da ngeen témoignage bi sang bi def ah vraiment ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii yëpp gis ngeen ko fii ah gis nga fii nag vraiment ñi nga xam ne ni moom dañoo ragal tàngoor mun na fi ñëw parce que vraiment il fait très beau ici parce que tout est climatisé franchement tout est climatisé Hein euh, donc, en tout cas, toutes les conditions vraiment de travail son sont, sont assez, assez, assez, assez réunies. Euh, donc, lolo, lolo, l'indilon d'abord, euh, dans un premier temps, le temps que nous avons petit pour pouvoir vous donner d'autres, d'autres, d'autres éléments, d'autres éléments sur lesquels euh, vous pouvez en tout cas euh, savourer, apprécier hein, tous les temps forts, les temps forts, bien sûr, de ce grand, de ce grand Magal de Touba qui a drainé un monde inimaginable. nit ñi fi ñëw ci màggal gi kenn xamul nu ñu toll démb gis ngeen ko vraiment dans les reportages sur la route cet embouteillage monstre ah sur des des des des des des des dizaines des centaines de kilomètres on était même obligé de prendre la route de Bambey déboucher sur Diourbel et ensuite Ndoulo pour pouvoir accéder, pour pouvoir accéder à, à, à, à Touba. Cela montre une fois de plus que ne euh, màggal gi moom amul tànku tànku ginnaaw tànku kanam la am at bu jot rek mbooloo mi dañuy gën a yokk macha allahu rabi mais li ñuy lancé rek ko appel mooy démb gis ngeen ko démb euh, buntu Pikine nit ñi vraiment di jooytu tamit euh, chauffeurs yi ak coxeurs yi quand même yi tamit ñu di dawal yërmande parce que. paasu Touba bu fekkee ne dañ ko jëlee juróomi téeméer deux mille cinq cent mu dem ba ñaari junni wala ñaari junni ak juróomi téeméer defe naa loolu quand même vraiment c'est exorbitant c'est vrai que chauffeurs yi tamit wax nañ ne ah nañu nañ leen di comprendre pourquoi nañ leen di comprendre parce que nee nañ mënuñu ñëw indi nit ñi ba pare di dellu vide parce que essence bi dafa cher d'accord mais nañ fayeeku passé aller retour sax parce que bu ñu ne juróomi téeméer juróom ko na ko nangu ay douze mille treize mille quinze mille francs nga di ko ko pour aller simple à Touba loolu boo nekkee borom njaboot war a yóbbu sa njaboot ñu màggali defe naa ne loolu moom vraiment tamit métti na kon nag sëriñ bi euh, euh, ñu ngi wax euh, chauffeur yi coxeur yi ne bés bi bésu jaamu yàlla la ndax sëriñ Touba moo ko woote kon nag li ñu bëgg mooy ñu am ci ñu sàkku ci ngërëmu sëriñ Touba waaye li ñuy wax naan xaalis boobu nga xam ne tey ñoom dañ ko ci wut wallahi am na lu ëpp doole foofu xaalis mooy am ngërëmu sëriñ Touba liggéeyal sëriñ Touba kon nag appel la boo xam ne ñu ngi leen koy lancé ñu di ci bàyyi xel pour que événement religieux yi su amatee au moins ñu dawal compréhension donc ñu ngi leen jox rendez-vous tout à l'heure pour d'autres reportages aux abords de la grande mosquée ak le faits marquants de ce grand magal de Touba qui névénement euh, un boo xam ne nii vraiment gis ngeen ak dayo bi mu toll à tout à l'heure